nag ñoom ñu ngi nekk euh, le Thiof euh, Resto nekk Sicap Baobab numéro 944 seen téléphone nekk ci 33 824 62 07 war nga woo ki nga xam ne mooy DG bi di 637 52 04 boo leen bëggee ñam li nga xam ne moom ngeen di seetaan ni te muy tàqamtiku yéen ñu koy seetaan en direct xam naa ne il fait 19 heures moins ceeb nag heure bi la a neex ceeb guddi li ma jaaxal mooy dama <laughs> <laughs> na dañ ko fi bàyyi waaye moom tamit dinañ ko woo mu bokk ci invité bi nga xam ne banquet pale ndax pale xam ngeen ne président amul waañ ñi koy toggal ay traiteur yu am solo nañu tey nag ñu ngi ci biir palais bi ñu xooli président de la république ci journée mondiale de la femme bi jigéen yee togg ñoo yàkkal ko mu invité gouvernement am ñu seeti Macky Sall ayca sallama toro ɓuuri gueɗe mbaɗa kam farba mbaɗa gam a thérèse mariama sarr eh, mouhamed dou khadim diop <laughs> voilà monsieur le ministre venez et eh, vous avez laissé vos chauffeurs là-bas là ayca où ana seen chauffeur yi wala da nga leen bàyyi. ci biti ah voilà mais. bisimilah ah eh, chauffeur. chauffeur yaa ngi. Eh, toog leen leen ok. am mbégte ak contentement. ci journée mondiale de la femme. jërëjëf maam Tor. nga jottali ma woo. Marème ma Mariama dafa togg pour toggal bi. nee na Mariama Sarr ki nga xamante ne moo nekk ci biir si moo ko togg daal ko ceeb waru. ma invité ñi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal émergent ndax ñi nga xam ne ñoo ci bay di ci dégg ministre de l'agriculture ngi teew. nee na mu invité ñi nga xamante ne ñoom la bokkoon di liggéey ci Sénégal émergent ñu ngi ñu toog. Mariama Sarr toog Thérèse Diouf case des tout petits toog. nee na Mariama Sarr toog. le premier ministre toog ak ñi nga xam ne ñoom ñooñu seen ay chauffeur ma invité leen. nee na Abdallah Boun Dionne toog. ak monsieur le ministre son excellence ak ay chauffeuram ñoom ñëpp ñu ngi toog di xaar. léegi on va aller directement ci consommer le riz local. ay wala. ayca ñu servir. ñu nii de doo toog doo taka. voilà ayca gars yi. jege si leen. man te ñu bañ a xam ne euh, ñu lekk nank ah, ñu lekk nank. yow farba gars yi ñoom ñëpp mën nañu lekk li des après c'est pour xale yi kër ga. kër ah, yi waaye ñaar ku tudd tudd xam nga euh, kii. la door ceeb wala boo ci lekk doo tontu tag dafa neen tor. oui. nga defar ma si tuuti bëjjël. ok voilà c'est bon je pense que man mun naa commencer ah parce que le président ne peut pas <laughs> attendre là. yow président ñaar ku du doyu ko de jox ko yee timbal ko ñeent ku ak kóoj. am. ak roof ak suul. merci. hey eh, kay loolu ka. oui ñu amul ku dinañ jël loxo ah parce que madame dafa voyagé. chauffeur yi jël la loxo. ku bëgg ku bëgg fourchette muy nii de ku bëgg fourchette muy nii bismillah. bismillah bismillah monsieur le ministre. dafal ma Dakar Dakaru Ngaay <laughs> Dakaru Ngaay. baax na baax na doy na. ca voilà. kii voilà. bismillah gars yi. lam daaru bur gene. doon la doon la. oh mais vraiment on doit travailler pour Sénégal mën a jëm kanam. dëgg la ndax lii mooy suñu. dëgg la ko googu. nañ hmm. lekk président. les crevettes tu vois les crevettes. ah crevettes ah da nga bëgg woon. Hmm. <laughs> dolli ma dama place bi. dolli ko dolli dolli jógaloo doo doo doo taxaw. doo toog doo taxaw. jógaloo doo doo doo taxaw. dama toog ne dama toog ne dama toog ne dama toog ne. lii kat doo mën a toog. doo doo doo taxaw waaw dama toog rek dama toog na. jógaloo doo doo doo taxaw. jëlu caaro yi. jëlu caaro yi. Tuwalo. non non non tàggaw. dolli lu président dolli ko nag bul bul kii de. dégg nga dolli waaye tuuti la. war ma déglu déglu ren. Tuwalo. non non non tàggaw. déglu ren farma juróom gudd ka. waaw kay. yaa ngi ko def noonu. loolu beneen. mooy am gërëm it. loolu ah, ah. moom. waaw naam waa kii moom. Tuwalo. non non non tàggaw. man defal foofu waa kooñ. suba. Jawalo. dago dago. yaa joro yaa joro yaa joro. Jawalo. Jawalo. Voilà Massar, merci. Jawalo. loolu moo. waaye nag bu yàggee doole mag yi nag bu yàggee te tuuti kii ministre doole ñeneen doole nga ñu am kii bu yàggee daal kay doole ñu am doole. Jokal. dëgg la dëgg monsieur le président. seen wàll. dootoo jot a xam. xam nga Jokal. dëgg la dëgg la. doo doo doo daal million. sëguñu ba pare. loolu moom. Eh! boo ma dund moo koy taal moo koy fay. ba door a baalu trop waaye yow wàllu du ko bokk ak kenn loolu moom daal moom. jaww la jaww jëlooloo. waaw déedéet den den dama den na ñaar sorba nag si diir. jëlooloo. voilà farba nag moo ci def defaral farba bu non. doo toog doo taxaw kon bu toog. dolli moom. voilà defaral room farba. oh kontaan na. ak suba bi farba bëgg na suba bi waalo. le gouvernement peut travailler. Oui. Sénégal peut émerger. Je ne peux même pas marcher. En consommant ce que nous avons cultivé. Je ne peux même pas marcher. Thiawara. Non, non, non, non. Thiawara. Non, non, non, non. leen gërëm. mu leen di gërëm ko. di ndax lii dara dàqu ko. dara dàqu ko. bay li ngay dundee dundee li ngay bay. dëgg la ngay lamtoor. fi nekk yëpp ci réew mi nañ ko dundee nañ ko bayee. waaw waaw dëgg la de lamtoor ci jën bi nga xam ne mooy coof. jërëjëf lamtoor. soble. waaw waaw ñambi pulux jaxatoo kanje. maam soro ci biir saf sap ak Dakar. kon ca boolo. a Cebora. Anda dalli. Anda dalli. Cebora. Dota dota. Cebora dikka ñu dem. Dota dota. Cebora dikka ñu dem. Dota dota. Cebora dikka ñu dem. Dota dota.